ñun waa Daara Nour Daara Touba Rudis ñoo ñëwoon tey doon fësal suñu yéene suñu diggante ak sëñ Touba ci di ko jaare sëñ Mountakha Mbacké te mu ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ñaan sëriñ Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér wax dëgg yàlla suñu mbégte moom buñ ko dee wax fuñ ko natt rek maanaam weesu na ko waaw ndax wax dëgg yàlla kawe na njot waaw jóg nañu am yéene siyaar ki fi toogal sëñ Touba te ko sëkk. te it bañ fi teewee wax dëgg yàlla euh, am nañ ci lu kawe suñu jot. xanaa tey moom maanaam xanaa mbégte boo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ndax kàddu yi sëñ bi yëkkati ñot naan ñëpp dégg dégg nañ ko seen bopp ndax moom moo wax ci làmmiñu boppam ne si yéen laa bokk te dinaa ko ànd ak yéen ba ci kalam kon loolu njot naa ni ku mu doyul rek moom dara dootu la doy ñun moom fi mu nekk nii li ñuy sant def rek mooy sant Serigne Touba ci li nga xam ne ni cofeel gi nga xam dox na suñu diggante sëñ bi ndax daa dafa nekk loo xam ne lu yàgg la. Sëriñ Saliou Mbacke mu Sëriñ Fallou mu Sëriñ bu Mbacke moom lañ àndaloon ci saar bi te it wax dëgg yàlla yëkkati na kàddu yu am solo ci kanamu sëriñ bi te wax dëgg yàlla wax na wax na ay kàddu yu kawe yu kawe suñu njot barke Cheikh Khadim waaw te it sëriñ bi la mu ñu tontu itam seet na suñu xol lool muy ci mbooloo mi la bokk te lu ñuy lu ñuy lu ñuy yëngu rek nañ ko nañ ko ko wax mu ànd kook ñun. kon loolu yaakaar naa ni kaw na siyaar. xanaa kàddu kàddu soññaat waaw gën a góorgóorlu en tant que mouride waaw gën a tegu ci yoon bi incha allah. waaw ndax kuy siyaare sëriñ indi ko addiya ngir sàkku ñaan mu ni la ci mbooloo ma bokk yaakaar naa ni doy nañu soñ waaw sooy soñ nañ bu wér tey it war nañ gën a takkaat laxasaay yi gën a jàppantewaat jàpp ni ñu ngi soog a tàmbali ngir saa sone daal ñu ñu ñu ñu koy liggéeyal saa sone ne rek di ñaan mu yàgg fi loolu te wér di ñaan rek ziar bi ñu fekk yàgg koo teewal at yu bari kenn bañ a manqué yàlla nangu yool bi yëpp ci barke Cheikhul Khadim